monsieur Wilane yow yaay yow yaay yor kàddu euh, parti socialiste tey jii euh, le 21 février àjuma ji ngeen di màggal ki nga xam ne moo yoroon parti bi ay at doonoon secretaire euh, général teyt it génn àdduna bu yàggul tamit tey jii kan mooy Tanor wax ñu ci moom. ah kenn xamul Tanor mën nañu wax kenn xamul ba mu xëy génn àdduna waaye daal Ousmane Tanor Dieng benn doomu Sénégal la bu juddoo Ngéñeen 1947 yàlla dimbali ko mu jàng ba jàng jotee euh, euh, te jàngewul fenn fu dul Sénégal ba jëf jotee it mu liggéeyee Sénégal ba xëy def li wala fi wax naan xandoor bu daanoo ci ci tool wàcc na. Euh, doomi baykat jàngalekat la baayam jàngalekat alxuraan la woon sëriñ daara mhm. mu xëy euh, euh, yegg fi mu yegg ba bu ñuy lim kilifa yi nga xam ne nii ñoom la yàlla gën a teral te Sénégal yi nangul leen Sénégal bi muy génn Sénégal bi muy génn àdduna moo doon ñetteeli personnalité politique bu Sénégal euh, Ousmane moomu bi muy génn àdduna moo nekk président du Haut Conseil des collectivité territoriales Ousmane Tanor Dieng boobu bi muy génn àdduna nekkoon na secrétaire général du parti socialiste ci ñaar fukki ñett nekk vice président international socialiste nekk président comité afrique international socialiste waaye it sos kuréel goo xam ne dafa ne wuute gis-gis ak xalaat wala wuute wird warte féewale ay nit yu bokk luñ gëm luñ yéene ak lu tax ñuy def politique jaamu yàlla ci jaame yàlla yi mm-hmm. mu sos lu ñuy wax alliance mondiale progressiste Ousmane Tanor Dieng moomu le 15 juillet 2019 la génn àdduna. Mhm. et moom ci boppam tey moom moo tax parti socialiste gannaaw bu ko au conseil defee njiiti réew mi ci anam bu rafet ak àdduna bi yëpp ak classe politique yëpp def ko ca jamono ba mu génn àdduna ñun ñu daje nii tey soo ko seetloo sax bi mu génn àdduna ba tey kenn dégguma wala ba bëriwul lu ngeen ma dégg. ci média yi wala may wax waxu politique ndax dafa mel ni bët bu set Ousmane Tanor Dieng ni ma koy gëj gisee deem day gën a bees ci man ndax bette gu mu bette waaye yéene guñ ko yéenoon mu gën fee yàgg ànd ak ñun diwal Sénégal kooku nag moom la ñuy màggal tey di ko sargal dalee ko ci am njàngum alxuraan ak ay ñaan torox lu tuub mhm. yéene ko njëggal ak yërmande ba mu tàbbi aljana bu ñu no noppee loolu def ko ci àjjuma ji samedi danañ daje ndakaaru def exposition. monsieur Wilane boo xam ne nii jaar jaaram. Uh-huh. jëfam melokaanam euh, danañ ko wane. dimanche ba nag ñi daje ñun ñoo ñoo sooke ñoo fexe xalaat bi ñoo jàpp bés bi. Uh-huh. waaye nag du suñu mbirum bopp ndax tanoor tanoorum Sénégal la tanoorum Afrique la tanoorum adduna la. ndax dafa am dress code. Ah, waaw. kenn ku nekk Sénégal am nga loo Cheikh Anta Tanor Dieng mhm. kenn rawu ca waa kër Seydi Aboubacar Sy kenn rawu ca waa kër Sëñ Fallou Mbacké kenn rawu ca waa kër Limamou Laye waa kër Sëñ euh, euh, Maam Abdoulaye Niass waa kër Alaaji euh, Alaaji Ibrahima Niass Baye wala waa kër bu Gunta Ndiassane waa kër Janaba kenn rawu ca kenn ëppalu ca kër labbe bi Tanor moomu nag moo génn àdduna comme ñëppay daje ñaanal ko ñi bokk PS ñi mu lëngoo ndooroon dana ñoom muy benn Tanor wala benn bokk yaakaar moom Tanor mi nga xam ne nii bi mu bi PS daanoo moo ñu jàngal ne wéet yow kenn ne yaa ci sa cigal guy xeex ba jor réew mi liggéey ko yow dong kenn mënatu ko lëngoo bokk euh, soobandoor bokk sumbandoor bokk fejandoor bokk jëfandikoo lool moom mi nga xam ne nii moo ñu dugal ci CPC CPA Front Siggi Sénégal Benno Siggi Sénégal Benno Bokk Yaakaar ba bi ni mu génn àdduna bi moo ñu xamal nañu léegi assemblée boo jël muy commune fédérale wala léegi commune wala ville wala conseil départemental wala assemblée majorité plurielle arc-en-ciel ba nekk lu ñëpp bokk dañ koy diisoo te nees koy diisoo mooy fexe ba kenn ku ne nekk ci ndax loolu ñëpp la lu nay ko ne ca Ousmane Tanor Dieng moomu royuwaay la war a nekk ci àdduna bi royuwaay la war a nekk ci classe politique bu jamono bi ñu toll royuwaay la war a nekk ci xale yi. waaw justement nan nan yow mi nga xam ne xam nga ko monsieur Wilane ku respecté woon mbala mu ragaloon nawleem la. loolu moo tax. dress code bi dañoo bëgg mu méroog moom dress code bi mooy lan mooy képp ku fay ñëw lu ñuy xaar ci yow mooy nga sellal sa yéene te ormal képp ko fa dajal waaye ñëpp sol yére mu weex tàll ñi suñ fóot suñu xol yi mu weex tàll ñu tàbb suñu xol yi ak suñu xel yi ñun ñëpp taxaw ngir liggéey ñaan yàlla mu jéggal ko tabal ko aljana waaye itam ñu fexe ba Tanor mii li mu ñu jàngal ak ni melokaanoon de ko fi mu am ay junniy junniy Tanor Dieng ndax koo xam na sa jikko yëpp yiw la rafet la mbaax la taar la ah boobu jege ko bu nit ñi foogee ne mën nga yi naag saay ba la ñu fàtte la déedéet yaakaar naa ne keroog bu tamante génn na keroog la juddu ndax bi mu génn na laa waxoon ne kenn xamul kenn xamul de feeñ na léegi kon nag Tonnerre moomu feeñ dañ koy jàngale sàkko gune yi tàggati gune yi ngir yàlla may ñu ay Tonnerre jën yu bëree bëree bari yoo xam ne nii ba ilaa yawmi diin dafay am ndax kat boo demee ci armel yi ñu fa tëdd ay fonkal lañu ay kilifa la ñoo xam ne nii ba ñuy génnaatuna ñu ñu jàngale woon nañu waaye boobu ba nëgë ni jamono ju ne saa su ne yàlla dana ràññee ay nit ci wàllu ci wàllu bu ne ñooñu nekk ay royutaay ñooñu nekk ay wamarkatu destin. lan la ñu war a roy si moom lan la ñu war a roy si moom. Mhm. soo amee benn porte-parole bu ànd moom sax ak moom des ak moom ba nëgë ni ah damay la ñu war a roy si moom ndaw yooyu nga tudd justement jikko rek jikko rek la nit di gënee morom ma buy sàmm du ko dindi buy sumee ko du ko dindi jikko yi Ousmane Tanor meloon làmbo woon mhm. ni mu melokaane mhm. orma bi mu amoon kersa bi mhm. ak rafet salaat ak doxalin bi mu amoon moo tax fu mu mos a yegg ci politique loolu ko fa yeggale kon tey nañ fexe ba jikko yooyu ñu nàmpatal suñu xale yi tàggat leen ci ba ñoom itam ñu mën nekk ay ñu gën demee daan ak melokaan Tanor Dieng. mbaa jàpp nga ne dina yomb ndax tey gis nañ ne question de débalage ak yooyu lool la ndaw yi jàpp ne mooy politique ndax dina yomb tey ñu delloo leen tàggat leen ci valeur yooyu nga xam ne gisoon nañ ko ci Tanor Dieng. waaw dëgg la léegi lu ñu seetlu mooy xaalis sutura euh, sosalante xaxarante euh, tibbante tànk dëmmante suujante ak waxante lu ñaaw moom bëri na Sénégal waaye nag. mosta géej mosta dëñ ci benn réew li am solo rek mooy ñi nga xam ne ni tey ñoo nekk ay kilifa wala ñoo jaboote doom yi ak gune yi ñun ñëpp ñu daal di dellu nag ci li nga xam ne ni moo ñu fi indi bàyyi ñu fi mooy rafet rafetal jàpp ak jakal loolu suñ ko defee rek te bañ a tayal tey tàggat xale yi ci école de parti ak ci formation politique ah am na yaakaar ne dolli ci école li muy def ci nit ñi dolli ci daara yi li ñuy def ci doomu aadama yi mën naa am ñu xel di am ñu gën sax jikko wala melokaan Ousmane Tanor Dieng lu jafe la ci wàllu politique waaye mën naa nekk. nga fàttali rek euh, monsieur wilaan lan ngeen fas ne def ca fi nga xam ne foofu la bàyyeekoo muy ngéeñeen. ngéeñeen àjjuma ji dañ fay dem ñun ñëpp bu xëyee huit ñun ñëpp mboolem kilifa diine kilifa aadam mboolem njiitu parti politique ak fu mu munti bokk. mboolem ay xeetam ci biir réew mi wala bitim réew ñu dem fa ñaanal ko yàlla toroxlu tuub ñaan yàlla mu jéggal ko tàbbal ko àjjana su ñu ko defee ba ngoon jot ah, ñu daal di dellu si Dakar samedi ji ñu def exposition ci jaar-jaaram ak dundam ak jëfam ak melokaanam bu ñu xëyee nag ca dimanche ja ah, ñu daje nag maison du parti mboolem classe. mboolem kilifa gu ràññeeku ko wala àndandoo wala kuréel bu bokkoon ci Bartholis seede ba mën a wax ci moom ak loo mën a génn ci lu rafet ak lu tax mu ràññeeku danañ la jox kàddu gi nga wax cant monsieur Wilane Tanor Dieng politique la woon te it duñu nekk ak yow euh, ci waxtaan gi yow mi yor kàddu euh, parti socialiste te duñu yëkkati yooyu les kàddu nga xam ne laata muy génn àdduna ci biir média bi ñoo ngi doon gis ne euh, moom daf li mu gënoon a bëgg moom mooy ñu réunir famille socialiste bi tey jii ndax loolu doon na seen bébét. li ma xam mooy lu waaye du bu yoodu koy niru te Tanor mos dogal moom kenn ci parti bi lu mu naan def moo ñu ne ko daan ànd def ak ñeneen ñam ko doon ànd ak def ak ñeneen xam nañu liñ fiñ liñ fi doon jëmee parti bi ak liñ ci bëggoon bu omage bi jàllee nga xam ne ñëpp ko bokk ñim àndaloon nag ñim faraloon nag ñim bokkaloon langue politique bi ñim jàkkaarloo nag ñim doon digaaleel ñëpp dañuy ñëw mbir niroog loolu moo tax du ma yëy yàbb ci lenn loo xam ne day niroog waxi parparloo mbaa may jël. Euh, dara euh, euh, maanaam jàngaay mi di ko yiiroo man man man sax bopp wala ma koy def ci pour parsolis bu lii weesoo dinañu waxtaan a yéen ci anam yu leer a leer leer leer waaye daal jàppale na lu jiwoo jeexul jeexul jógu fa <laughs> d'accord monsieur Abdoulaye Wilane El Hadj Abdoulaye Wilane may fàttali ne yow yaa yor kàddu parti socialiste ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax voilà